man li yàq sama diggante ak Ousmane sonk du loolu ci waa fu la jóge awma problème ak positionnement waa Pastef awma problème ak leadership am ñu man ko koo nangul par rapport à ça li nga xamante ni moo yàq suñu diggante seeni façon doxalin boo xamante ni am na ñu nangu ànd ak ñoom ci loolu. doxalin boobu lan la. déglu ma am na ñu nangu ànd ak ñoom ci loolu ndax dañoo jàpp ni waa ji mooy prochain président de la république et j'ai dit à certains. na nekk président de la république du Sénégal lan mooy changé ci suñu dund dinañu añ reer ndekki dem liggéey continuer suñu combat politique parce que ci dignité rek la ñu mën a ànd ak nit man Ousmane Sonko falu ak ñàkk falu may mën a déranger wuñu parce que dama la ni batiruñu suñu destin suñu carrière politique par rapport à un